ñi ngi am mbégte ak kontaante yéen ñi nga xam ne yéen a teelu ak di seen chaîne internet bi le ah, comme niñ koy waxee saa su nekk seen i yitte suñu waaye seen bëgg-bëgg mooy suñuy bëgg-bëgg sinon ne nag tey dañoo a ah, fekk si koo xamante ne tey ji macha allah xëy na su ma ko présenté sax ah, ñi koy seetaan duñu ko lam-laamee waaye tamit miin nañ ko si li nga xamante ni moom mooy écran yi muy kan soxna Awa mu Serigne Abdou Karim Mbacké nekk tamit seetkat boo xamante ni bii macha allah mën li muy def xam ko loolu boole kooku di si dimbali doomu aadama yi ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi dañu koy bàyyi euh, mu présenté téléspectateur yi koy seetaan su ko defee ñu wéy moo si waxtaan bi soxna Awa bu sëñ Abdou maa ngi lay ziar bu baax. di nuyu seen waa bi yëpp di wax ne auzu billaahi mina seytaani rajim di bëgg commencé ci bisimilah terminé ci rahmaani rahim di wax ni jërëjëf sëñ Fallou sama wasila jaaraama cheikhul Abdul Karim sama waa ji ñuy ci waxtaan bi rek ma jox ñëpp loxo di ko jëralee rek ci sama waajur bu jigéen di ko mu mujjalee ci sama waajur bu góor. macha allah soxna ñu fekk la nga nekk koo xamante ni bii nii seetkat nga. Mhm. comme ni ñu ko waxee eh, daanaka sànq rek ñu ko doon waxtaanee si biiru kàddu. Mhm. Eh, bi ma ñëwee sax sama technicien bi nga xam naa xanaa kii de doog dugg ci mbir mi. Mhm. donc yaa waxal sa bopp ban année nga dugg ci seet bi dañ ñuy wax tey soxna Awa mu sëñ Abdou Karim Mbacke lan moo ko dugal ci seet bi. waaw xam nga ñun moom li ci maam sata koy jël. que dañoo fekk suñuy maam doon ko. ñu làq lu yàgg ñun ñuy soog a ñëw ak ndogalu yàlla yit it 2016 ba tey ñu ngi ci mbiru seet biñ koy liñ ciy nekk it 2016 ba léegi it yàlla ñu ciy suturaal nit ñi ñu ciy jox bopp ñu ngi ciy wax lu am mu doon lu yàgg ci ñun waaye boo gisee rek lu tax mu laaj la loolu wàllum génn ci wàllum média ak wàllum génn ci wàllum leneen day xaw a des ci ñun lool parce que li ñuy tënk liggéey bi day xat nit ñi dañu ñuy soxla am ñu jot benn yoon waaye yow ba mu ci dugalee rek ma dugg ci. waa loolu la. Euh, kon seet gi nga xamante ni yaa ngi koy seet ñu ñëw fekk la nga tiim li nga xamante ni moom mooy ndox. ndox mi nga xam ne moom la ñëw fekk nga tiim ni moom nga nekk di si liggéey. ci laay liggéey bi waaw. ci ngay liggéey euh, nit day liggéey ñu gis li muy liggéey danaan daa am lu ma arrivé wala ma am lu ma feeñ wala ma gént nit moo ma jox li nga xamante ne moom laa nekk di liggéey. Mhm. lan moo la lan moo pour nga nekk si métier bi nga nekk nii. waaw li ma ci poussé mooy damaa nekk doomu waalo waalo doon doomu ndox ci baay ak ci maam yëpp ak ci yaay doon ay bindkat waaye teewul sama rawaan bi nga xamante ni moom laa àndal mu jokkulu ci man di jëf ci man ñu koy wax jampay ku ne di ko xam moom moo ma ci dugal moo ma feeñu yóbbu sama xel ci ay at ci ay at mu yóbbu ci sama xel looloo tax nag sant ñu ko ñu koy def mu doon lu ñu ciy dimbali ñu mën ko lool nag amuñu ci tiitukaay ndax lu ñu maîtriser la lu nekk suñu bopp la suñu don la tamit ñëpp xam ñu ci. Euh, raar na nag ñu gis ci li nga xamante ni moom mooy jëmmi jëmmi jëmmi liggéey bu mel nii ku ci mhm. jëfe li nga xam ne moom mooy ndox la moo tax nga taamu ci ndox mi wala ki nga xam ne moom nga àndal moom moo la sàkkul pour ndox mi. waaw ki may àndal man damay wax sax at day changé li may xoolee parce que gis bëri bokkul ñi ma xam 2016 parfum laa doon seetee. parfum laa doon njëkk a seetee. ñi ma xam 2016 di ma dégg parfum laa doon seetee ak 2000 francs. waaw naka la ñuy seetee si parfum balaa ngaa xuus ci ndox mi. waa balaa may xuus ci ndox bi ci parfum bi nit ku nekk ak lala yàlla may ak rawaan ku ko àbb danga koy teg ñun àbbuñu ko lu ñuy def dañu ko moom maîtriser ko dañ koy xool ay at ñu ngi xool ci deux mille 2016 ba deux vingt 2024 yàgg na ndox bi ñaari at lañ ci sokkalagum chaque at rek. ak feebar bi muy indi soo tanee ak leneen lam lay wan loo ci mën a def. parfum bi ngay seetee ki nga si seetal day ñëw nga piis ko si wala da xool parfum bi jëm jëm parfum bi di xool leel nit ki ngay gis ay yoo xamante ne ay mbiram la wala naka il faut nga tojoo ñu yax bi awoon. ci lañ koy piis parfum bi dafa garaaw nee naa la baabeel man waaye sëñ Fallou laa. ci lu ma neexul rek laa dul gis waaye montre bii ma takk sax bu ma ci xoolee gis ci barki sëñ Fallou parfum bi dañ koy piis ci biir 2000 yi nga teg sa loxo ñu wax la kaamil uqa maay seul seetkat bu koy def. est-ce que. nga joxe 2000 francs ñi ma xam 2016 ñu ngi may dégg ma piis ci parfum bi nga talal sa loxo ma wax la uqa wax la médical man maay ki koy def. waaw ba ma defi parfum bi. Mhm. ndox mi ñëw. ndox bi ñëw. maanaam dañ la xool ba mu neex na genre la bàyyi parfum bi nga indaat beneen exclusif muy ndox mi. waaw nga bu dee yaa may dégg. maa ngi lay dégg bu baax te loo may gën a laaj damay gën a neex. nee naa la mbiru Jean Paye bu ma ci xuus du ma ci doyal ci biir ndox bi bi ma koy jox samay famille ñu may dégg ñi ma xam ñu may dégg ci biir feebar la ma ko joxee. ndox bi Jean Paye ci biir feebar la ma ko joxee yoru ma bu peteesal abu ma rab abu ma ndëpp te it forcé wu ma rab ñi ma xam dëgg fréquenté ma xam ma ak ñi may xam man nee naa la may la voyante du peuple international ndox mi bu ma ci tiimee médical lay wax ndox mi. bu ma ci tiimee su ma nee la fayal say bor barki Mouhamed Fadal fayal say bor doo fanaan ci ndox mi ci ndox mi. képp su ma nee la fayal say bor barki Mouhamadou Fadal fayal say bor doo fanaan lu leer laa lay wax. ñi ma xamit di dégg bu baax li may wax ci laay tiim suba ba guddi mu ñuul ma sotti tànkaat du ndoxum kase nag du ndoxum kase. da seet da ngay tànk ndox mu weex. waaw nga parce que nit ñi ku nekk ak sarawaan rawaan te rab kenn mënu koo faj rab kenn mënu koo jënd rab bi ngay xool di ko nax di ko neexal di xool ay saraxam bu dee ñetti rab ba ñeenti rab du nit ndox mi day ñuul kukku bu dee kat bu mën nga nag laa wax dañ koy tuur changé ndox bi ñi may laay fandool ñu koy gis chaque minute su ma seetalee cinq personne damay tuur ndox bi bu dul loolu ndox bi dina lëndëm ba génn la tilimu doomu aadama yépp nii nga toogee nii di wax ak man sa lépp a ci ndox mi taxaw mu ne est-ce que. lu leer laa la wax lépp ci ndox mi taxaw barki sëñ Fall. Euh, soxna Awa. Mhm. Euh, ñi nga xamante ne bii nii ñoom ñu ngi liggéey. liggéey bi mhm. liggéey euh, tey comme ni nga ko waxee sa ay biir wax feebar moo la dab. si mhm. feebar boobu dab la moom moo poussé tey nga doon ki nga doon tey jii voilà. waaw parce que avant may feebar seetuma woon avant may feebar musuma koo liggéey samay maam nag moom lañ bindkat lañ ku xam seneen ak ñit ak sekkeen ci fama ma bokk ku xam waalo dangay xam que ni ay bindkat doo nga fa nekk waaye dama ni jëmmi sampay moo ma dugal ci lii yóbbu sama xel ma ciy liggéey ci lii xel mu dem moo tax ma def ko xel mu dem ma tane mu ni ma danga koy def sama famille may dégg ñëpp ak may dégg ma koy def te bi ma koy def 2016 ak léegi yàgg na yàggul waaye dama ciy waxak ay kilifa ñuy jooy dama ciy wax ak ay xale ñuy jooy damay seetal nit ba pare nga ni allahu akbar ba xam yow dañ laa wax sama kaset ci ndox mii la. ci ndox mii nga tiim. Mhm. képp képp. ayca soxna Awa liggéey bi ñu gis nii comme ni naan bu euh, buñ la seetalee ba noppi. Mhm. Euh, le fait yaa ngi seetal nit ki boo gisul raw xaanam wala moo euh, comme ni ñu koy waxee xuddaama. Mhm. boo ko gisul doo mën a faj nit ki. dëgg la naka ngay liggéeyee ba gis nit ki ak si lan ak lan ak lan nga ko mën a gisee ba yow ni nga daggee consultation ci hôpital ba rek ñu ñëw consulter la xool sa jàngoro jox la ay médicament tey jii bu fekkee da ngay seete ci ndox mi. Mhm. ma ñëw consulter la nga ñëw nga ma tey jii nii man sama rawxaan tant que gisoo ko est-ce que man di ma mën a faj. déedéet damay dégg ay ñi ma ko sañ wax ñu bari naan gis naa rawaan gis naa jinne rab sa rab mën naa koo faj faj bari bokkul man tuur laa yor man tuur laa yor. su ma la xoolalee xool sa saraxu raw xaan dama koy faj lenn laa dul faj ci àddina dindi rab ku ko mën duma ko def man dindi rab laa dul faj waaye lu dul loolu xanaa nga ñàkk ni koŋ-koŋ kër élément bay Karim ñu ni la entrée nga dugg wax sa soxla wala nga bañ a nekk extérieur wax sa soxla bu ñu tiimee ndox mi dañuy xam sa rawaan lu muy laaj ak nuñ koy naxtaanee dañu lay jox garab rapidement foofu jeex. ñu dugg ci point tomb par tomb ci li nga xamante ne bii nii moom mooy euh, moom mooy moom mooy moom mooy li nga xamante ne bii nii moom ngay yëngu xam naa bëri nay façon si wàllum yenn maladie yoo xamante ni tey ku ñëw fëgg si la euh, ay jàngoro di nga ko saafara incha allah ci kàttanu Yàlla waaye dañu ñëw si point par point par point ay ca a Adja ñu ñëw ak yow ci li nga xamante ni moom mooy euh, jinne jinne nee nañ dafa am rab nee nañ dafa am mm-hmm. waaye man ba tey loolu dafa xawal leer sama bopp lan mooy différence jinne ak rab man damaa bokk sax dama yaakaar ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay. déedéet waaye on am na différence. am na différence lan mooy seen différence. parce que bu dee rab wàllum rawaan la wàllum rabu cosaan la lim lay laaj ak li ngay samp benn la bu dee jinne mën ngaa génn jinne solu la di la def loo di la tox loo di la naan loo di la sadig loo di la def loo lu ne par des fois nga gis koo xam ne du jullit jinne dugg ko muy jàpp di julli par des fois nga gis jullit. du jàpp du julli rab ak jinne du benn rawaan moo am ak jinne rawaan muy rabi cosaan ku sa rabi cosaan ne ci yow maa bu ni la mën naa koo dindi boo ko ñemee jël sa xaalis maa ko wax maa ko assuré amul. delluwaat mm. ku am rawaanu cosaan maa bu ni la ñëwal mën naa koo dindi jël sa xaalis suñ ko mënoon a dindi duma am feebaru xel bay liggéey. wala déggoo ma wax laa la wax de rawaan ak jinne du benn. ku la ko booleel mi ngi jaxase caaki rek soow la waaye bokkuñu yoon ba jëm. est-ce que kon kooku nga xamante ni mi ngi dem di ñëw di seet si sëriñ bi au lieu muy dem si sëriñ bi daa war a dem ci la nga xamante ni moom mooy la mu bàyyi muy cosaanam su ma la déggee. waaw ñaari bokkul am na ñoo xamante ni tey bu dee soxnaawa nga ñëw tey ni danga koy faj rabi cosaanam bu bëggul rey boo ko rey yaa ngi koy indil gàllankoor te ñu ci bari ci sama genre yi sama bopp laa koy nattee meluma noonu waxin la déggin la laaj senegal daa naqaree waxee am na ñu ci bari ñoo xam ni dañuy jël saraxu soxna aji jox ko soxna jëmbu jël saraxu soxna jëmbu jox ko soxna awa doo ray ñu ray loola. doo génnee gerte ñu génne loola ko doo génnee ndawal ñu génne loola ko àddina bi nee naa la tegante pool dafa taxaw ak tegante leket ak tegante layu waaye ku ne xam na ko nga mën danga ko dul nangu ñun lii ñuy def nii nee naa la uqa ci réew mi maa ko fi wax. man maa ko fi wax bu dee wàllum faj barki Ahmadul Bamba soo ñëwee su ma ko mënul dama naan la mënuma su dee wàllum seet soo ma xasee ba valideel sa xaalis su ma nee la tur baa ngi lay nuyu da ngay dégg ba naan doy na man maay seul seetkat buy seet ay heure naan la soo doyalul nga wax ma ma li lu leerul wax ma ma leeral parce que lii may def dama ko mën waaw waaye mënandoo yi nag dafa bari Mm-hmm. soxna Aji li nga xamante ne moom mooy seet bi ba tay dama siy ñëw comme sànq wax nga ko tey mm-hmm. man mën nañoo jël samay mbir jox la ko te donte loolu nekkul sa mbir euh, mm-hmm. moo tax ma ne euh, dëgg-dëgg seet bi est-ce que nit ki tant seetaloo ko ba gis li nga xamante ni moom mooy war si moom pour nga soigné ko doo mën a faj moo tax seet il faut ñu wax si bu baax a baax baax nga wax ne lan mooy dëgg-dëgg seet ndax nee nañ on dirait que base base liggéey bi moom mooy seet bi. mooy mhm. équipe di si liggéey. base bi dëgg-dëgg moom mooy seet bi moo tax dañu bëgg insister bu baax ci li nga xam moom mooy seet bi ñi nga xam ne ñoom ñi ngi war a di jëflanteeg yow. Mhm. war a jël samay mbir ñëw indil la ko te doo ko ni loolu yow moom man du sa du sa du sa du sa du sa du sa. xam lii rawaanam da xam fa mu bokk bu dee maa la maa maa ngi nii yaa ngi nii loolu du sotti. ñun bu ñu la xoolalulee ba xam dëgg dëgg dëgg seet bi lan la bu ñu la xoolalulee ba xam dëgg dëgg mbir mi lan la du ñu la wax bii sarax la balaa ñu lay faj dëgg dañuy xool sarawaan xool sa sarax xool fi nga taxawee duñ la laaj âge duñ la laaj turu yaay duñ la laaj turu papa sa tur ñu wax la. lii sa sarax bu dee da ngaa indi feebar bi du ñu jël saraxu kenn jox la ko ba ñu dalee seet ak léegi damay wax ni ñëpp dégg nañ ma ci Sénégal ku narta saafara bul ñëw yàlla boo xëy waaw ayca ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy euh, ay sangat yoo xam ne yaa koy joxe yow en tant que soxna aji bu sëñ Abdou Karim Mbacke. Mm-hmm. soxna Awa. soxna Awa. Mm-hmm. soxna Awa bu sëñ Abdou Karim Mbacke. Mm-hmm. ay sangat yoo xamante ni bii nii yaa koy joxe. sangat yooyu noonu naka nga koy jëfante ak doomu aadama yi. waa ñun suñu sangat 2016 ba tey ku ne xam na prix bi prix sangat bu dee wàllum raxas yaram dafee am 21000 la bu dee wàllum bayre dafee am. bu dee wàllum tooke ci yaram dafay am bu dee wàllum góor gu tële dafay am bu dee wàllum jëkkër ak jabar yoo xam ni booloo mënta am ci biir kër gi dafay am sanga di dangaa fekk tey àjjuma mu jeex jeudi laa koy génnee ku ne xam na ko dañuy teg bërigo yi day jeex démb laa yu sonn nga remplir njaq yëpp mu fees dell day jeex ndax nit ñi ñam nañ ko xam nañ ko du lu ma ragal piri sanga di ñëpp xam nañ ko lu nit luy loo xamante ni jafe ak gàllankoor mi ngi ci nit ci ginnaaw yàlla bu ñu ko xoolee xam ni boo laalee saafara bi mu faj la soo ñëwee ragaluñ ko dangay tane force force du lu ñuy def naan la tey suba man sama sama liggéey ak sama sangat ak sama lépp xam nañ ko dama naan la boo gisul ñëwal ma delloo la gis force yàlla mooy gisal waaye gis force ndax li ma àndal dëddi lool li ma àndal dëddi mbër lool li ma àndal daa bari doole lool nag muy Jean waaw. macha allah euh, soxna euh, Awa ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy euh, wàllum ut këyit maanaam ñi nga xamante ne ñi ngi bitim réew. Mm-hmm. bëgg ay këyit ngir bëgg a ñëw si seeni ay njaboot waaye këyit na leen tembe. Mm-hmm. ñi nekk Sénégal it bëgg a dem utali fi nga xam ne moom mooy bitim réew tamit yëf yi xaw a dëggal si seeni côté est-ce que ngay jëflanteeg nit ñi si wàllum këyit. waaw dañuy jëflanteeg nit ñi liñ ci jëflante sax bari na yàggul dara. ñu ngi koy ñu ngi koy dégg ci live bi ay soxna yéeg di ñu ci témoignage ci wàllum kayit loolu moom yaakaar naa ne suñu wàllum liggéey lu ci gën a oyof loolu la muy wàllum kayit ku indi sa kayit rek bu ñu ko laalee rek ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu doon li maam mayee dindiwu ko force dem la boo mënul ñëw force ñëw la loolu aw ma ci xel ñaar. Mhm. Euh, soxna ji ñu gis euh, soxna Awa ñu gis li nga xamante ne dina dem après dañ koy dagg. Mhm. Euh, soxna Awa ñu gis li nga xamante ni moom mooy ay bague yoo xamante ni parfois eh, dañ koy takk buñ ko dee takk dañ naan lu ci nekk ak la mu ne la mu àndal. Mhm. ay bague xaxeexa. bëri li nga xamante ni moom mooy ay façon léeg-léeg nga gis paire bu vert léeg-léeg nga gis bu rouge ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. ba si bi nga takk nii ñi nga xamante ñoom ñoo lay seetaan ñu ngi gis nga yor ko. Mhm. bàgg yi tamit nu bàgg yi man maa koy joxe nee naa leen ku ci nekk ak sarawaan bàgg yaa ngi nii ku ci ne ak sarawaan ak bàgg bi mu war a bi nga war a gàddu ku ne ak li nga àndal ak bàgg bi mu war a gàddu du ñu xool nga am rawaanu ngelaw ñu jox la bàggu suuf da ngay lijjanti ba sonn doo am du ñu gis nga yor rawaanu xal ñu bax la jox la bàgg ndox dangay lijjanti ba sonn mu tar bàgg yi ñun ñoo koy def ñi koy jël ñoom ñoo koy jëlaat. nee la sista Babel bari bokkul bari bokkul de li may def dama koo xam waaw bàgg yi ku ko ñam dootoo ko bàyyi te ñi ko ñamit ba démb démb maa ngi koy def statut dañ ma koo laaj ba damaa plafonné fi mu ne nii ci ñi ma koy jox waaw ku ko soxla rek boo ñu woowee ñu def. ci xéewal balaa ñu xuus sax da ngay joxe numéro yi nga xamante ni mhm. képp koo xam ne soxla na soxna Awa bu la mhm. koy jotee avant loolu bu ko defee ñu daal di woy nga joxe numéro yi nga xamante ne bi ku la bëgg a jot rek si loolu la lay jot numéro sama numéro nag 77 la 860 38 beneen bi 619 02 33 ku ci woo soxnaa wa muy suba muy ngoon di ma jot boo ma jotul it di nga jot ñoo xamante dinañ la mën a jox soxna Awa nga wax sa soxla. muy say assistante. Mhm. ayca euh, soxna Awa ñu xuus rek ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi waaye dañuy ñëw ne moom mooy wàllum cat. Mhm. ndax boo xoolee doomu aadama yi am na ñoo xamante ni bii i bunt na am na loo xamante ni ñu ngi ko doon yëngu comme activité. Mhm. waaye dafa mel ni dañoo dañuy toog naan est-ce que man amuma ku ma tooñ oo kër tooñ ñu kenn li leen jàpp mooy cat. waaw si sa Babel cat dafa doy waar te ñu bari xamuñu ko cat da lay topp ba ci bàmmeel cat dalay topp ba ci bàmmeel te cat mun naa fànk lu ne kuy def ci sa yaram ta raxasoo cat raxasoo làmmiñ dangaa mel ni kuy root ndox di sotti ci suuf moog zéro ñooyam ñun am nañ fi cangati cat yoo xam ni ku ko laal di nga xam ne lii ma laal lan la ndox kuñ koy jox dañ naan la boo xëyee boo géntee wooñu appel bu ne lañ ciy jot ci wàllum gént ñu xam ni cat la mais nag da ngay gis façon sangat bu ne ci ndakaaru ku ne di génnee sangat bi cat la bii lii la bii la mais ñu ci bari ñoo xam ni dañuy dem ba dugg bitim réew seeni mbir dëgër ñu seetal la ni la sa wujju yaay la wala yow da nga am gàllankoor wala dañ la ko def orkani cat moo la jàpp cat booboo la topp ba nga yegg moo lay dëppaat boo ko raxasul du deñ muy góor muy jigéen te cat moo sonal nit ñi waaw cata sonal nit ñi macha allah kon bu mhm. ñëwee li nga xam ne moom mooy cat am na fi ay saafara yoo xamante ni bii ni képp koo ñëw di nga tàqali ko ak moom. bu baax ci kàttanu yàlla. waaw ay ca ñu avancé soxna aw mu sëñ Abdou Karim Mbacke li nga xamante ni moom mooy xool doomu aadama mu neex la jël lu metti teg ko ko. muy mhm. maanaam ay def-def yoo xam ne sonal na nit ba bëggee jug di def dara rek da koy daal di tënk. Mhm. léegi nga war a tojal ko liggéey boobu noonu. waaw dangay ñëw rek ñu daal di lay xool suñu la xoolalee ñu xool ban façon moo ci nekk Wolof Njaay da naan loo jëmbatul doo ko buddi te doo jékki-jékki rek fekk garabu guy nga buddi ko looy buddi rek am na saar boo cay def képp ku ñu def dara suñu nee la jàkk xam ni mën nañ koo dindi ñun dañ koy dindi ci saa si démb rek am na ko ma ciy waxal mu ni ma soxna si damaa dem fu ne di faj ngelaw fu ma dem ñu ne ma ngelaw du du denc sa yaram ma ne ko boo ñëwee ci man fi nga toog ngay toog barke Ahmadul Xadim ma dindi ngelaw li ragaluma loolu bul fay dara ñëwal parce que ñun li ñuy def xam nañ ko mën nañ koo képp ku ñu liggéey yaram bi am tooke ñu liggéey la parce que dañ lay def ba pour nga tëdd doo ko mën pour nga nelaw doo ko mën ñu ci bari du ñu nelaw guddi ndax def-def dala koy jàppee am na ci nag ñoo xamante ni nag ma leeral def-def du leen jàpp rawaa na leen i dóor ba ñu tëdd waaye bu dee wàllum def-def su ñu nee la jàkk xam ko dama naan la lii wa koy dindi man du ma benn seetkat boo xam ni wala benn fajkat boo xam ni da ngay ñëw lii nekkul ci yow. man la lii nekk na ci yow demeewu ma noonu su dee def def rek boo egsee rek ñu dindi ko. Mhm. incha allah euh, mu mel ni leer na yéen ñi nga xam ne yéen ñuy teeloo ak dañu bàyyi xel dañu seetaan. Mhm. Euh, ki ngeen jàkkaarloo moom mooy Soxna Awa bu Serigne Abdou Karim moom sox Soxna Awa moom Serigne abdu Karim Mbacké sël moom moom rek lay wax. Euh, Jean bi may dégg. Mhm. dama am question boo xam dama kaa bëgg a poser. du da ngay suivre bu baax. dafa am combat yoo xam ne dafa war a taxaw. to mhm. incha allahu rabbi. dëgg la bokk na ci ginnaaw suba incha allahu rabbi franc ak ki nga xam ne moom mooy bombardier. Mhm. franc bu parcelle ak bombardier bu mbuur. Mhm. a waaye am na combat boo xam ne taxaw na muy Siteu ak Modou Lo roi des arènes combat yooyu noonu Jean bu dee yaa ngi may dégg ban ak ban gis-gis. ak dëgg la. Babel nee naa la man suñu waa këram ay tënk. waaye làmb ku ma ni kii mooy daan koo koy daan barki Ahmadul Xadim ak noddu bi yàlla bu ma raw man làmb ku ma ni kii mooy daan koo koy daan su kër ak may dégg su ma bëggee wax sax wala def live ne di way daan dañ may tënk Siteu Papa Sow maa ko waxoon Balla Gaye maa ko génne la woon saraxu ñàmbi bi maa ngi woon géejawaay notaire maa ko waxoon mu def ko daan ñi ànd ak Balla Gaye ñu ngi may dégg te kenn caméra waruma dara waruma dañ may woo rek man leen def leen sarax bii rek doxal. combat yii di ñëw. combat Siteu Modou Lo ma wax la ci lu dul deñ dina mitti dina tàng waaye dina gaaw lool kii daan nag dama di xale du ma ni la diw waaye boroom màndarga kilifa bi nañ ko déglu ci loolu boroom màndarga kilifa bi ndax dama ni woon sax duma wax ci làmb dëkk bi daa toj nit du def ba pare nga gaaw a kar làmbam waaye làmb lu ma la ci wax lii kaamil la du dañ waaw. Euh, Franc Bombardier. Mhm. le deux mhm. mhm. Bombardier Franc na def ndànk sama rakk jooju na def ndànk na def ndànk lool te ngeen séntu ci kat appe ci combat boobu. ci mhm. dina gaaw lool. quatre appuis dina gaaw lool. dina gaaw lool nag. Sa Thiès Eumeu Sène. <laughs> ce que dama may boobu ma noppi waale ko rek. ñu bàyyi ba ñu ñëwaat. ngeen ñëwaat rek. ñu ah. boo ñëwaatee ma wax la ci lu leer. waaw ñu ñëw si li nga xamante ni moom mooy combat papa booy jënd bi nga xam ne am na bërki dee mooy njaay ñu dégg si ab euh, benn euh, influenceur boo xam ne wax na si moom euh, ay kàddu yoo xamante ni bii nii doo too doo too daan donc mu nekk loo xamante ni bii nii métti na nga xam ne moom mooy soxnaam te lan ngay wax nga xam ne moom mooy papa booy jënd xam ne ah gën naa am victoire waaw papa booy jënd xam nga at bi coon sekk gaañu xam nga ko coon sekk at bi gaañu xam nga ko ci at boobu bu dee jabaram mi ngi may dégg maay seetkat bi ko woowoon ni ko dama laa gént nga nekk ci camion yow waali papa booy jinne waali di way ngay fecc ndey gay bu dee mi ngi may dégg maa ko ko waxoon période boobu mi ngi ma fekk village waalo mu ne ma dinaa def ñetti boolu laax gàllankoor yi ba ma koy gis amul ku ko saña wax man bi ma koy gis amul ku ko sañ wax gàllankoor bu ne rek damay tëdd ñu wan ma rek ma xëy woo borom mais papa booy jinne lii ko dal dafa metti waaye lépp yàlla la de kuy daan ak ku dul daan lépp yàlla la ki ko ko teg na ko teggi te mu fexe rek mu jug ci boppam da di ndaw pour mu bàyyi làmb digaluma ko ko man maa la ko wax bu defaroo daan no defaru euh, soxna Awa euh, mhm. léeg-léeg damay toog ay xale yu jigéen benn kàddu la wax lan moo waral méttitu bopp yi métti sonal ñi nga xam ni moom mooy jigéen ñi ba si man mii sax di wax ak yow maanaam métti boobu sonal nañu à ce point sonal goo xamante ne fukk waay natt weesu na ko mhm. te du benn nit ngay dégg mu koy jàmbatu wala ñaar ñu koy jàmbat si àdduna dafa bëri mhm. lan ma waral guddi yi ni métti bopp bi sonal rab rab sa bopp di metti nga woote ñu la dañ laa sëf du dëgg rab la ak jinne mooy waral bopp buy metti mais dafa mel ni ñoom kon xanaa dañu dëkk ak ñoom waa ana tali yi tali yëpp xotti nañ ko bayaal yëpp lañ xotti def ko ay tali fu jënd dëkk fi mu ne nii tuxu na soo dee jigéen ñeme pose xef ñeme pose we sopplu jënd bu la rombee lay def mbokkam force su metti daf lay sonal wàllum rawaan daf lay sonal sa bopp di metti ñu naan la dañ laa sëfëg feebar bii la du dëgg rab la naka ku bëgg mu deñ wooma barki sëñ Fallou ku bëgg tàqalikoog bopp buy metti wooma ci ban numéro 38 68 77 la mbaa 619 02 33 boo ci woowee élément Baye Karim waaye sëñ Fallou bi mu jox la ci ay tegtal mu leer la nan ñi nga def ko tàqali koog bopp bi métti bu deñul bindaatal ci commentaire yi maay ki koy wax man la maanaan ku lu normalul bindal ragaluma loolu. Euh, mhm. ñu ñëw si euh, diabète ak li nga xam ne moom mooy hémorroïde. Mhm. Euh, traitement yi ndax léeg-léeg diabète am ku mu dal nga dem hôpital ñu traité xamante ni léeg-léeg ñu wàññi cëru doomu aadama fekk ne yow la nga soigné nit ko sax àggul foofu. Mhm. Euh, soxna Awa day traité li nga xamante ne moom mooy jabet yeggul hôpital bu yeggul hôpital ndax feebar bu yegg hôpital bu ne tooke am na ca feebar yu ñëw yëpp sànni la muy jabet muy cancer muy hémorroïde muy bu mu mën a doon sànni la lu ñu xas ba dagg du ñëpp lañuy dagg. du ñëpp la ñu naan lii la ñuy dal hôpital gisul ngelaw gisul tooke jabet lay gis gisul cancer gisul gisul gisul bu buñ lay sànni gisul korte buñ lay sànni cancer lay gis waaye dama ni bu demagut hôpital boo ñëwee ñu jox la garab bu yeggee hôpital Sonawo du ko bu dee eggul hôpital bu ñëwee si da nga koy traité. ñu jox la garab mu deñ. traitement ñaata fan lay jours la. sama traitement 15 jours la bu dee traitement sangat 7 jours la. méttiwul waaw lu gaaw mën a maa ko fa xaar. yaa ko fa am kon. Mhm. Euh, ayca kon soxna Awa ba léegi kon dañuy avancer rek ci li nga xamante ni moom mooy euh, question yi nga xamante moom la war a poser si li nga xam ne moom mooy euh, tawat yi nga xam ne dal na doomu aadama sonal leen wit. Mhm. dañuy ñëw si li nga xam ne moom mooy ndoxu siti ndax dañoo wax ni dafa am boo xam ne day génn ak boo xam ne dafa nekk si biir. Mhm. donc nag dañoo bëgg xam lan mooy différence bi nekk ci biir ak bi nekk ci biti ban moo gën a baax ak bi nga xamante ni moom moo lay dimbali si jàngoro jooju. waaw sista Babel ndoxum siti bi nekk ci biir a gën a bon ndax boo dee jigéen di sëy mën naa tàngal sa biir ba doo ëmb wala lu fa tege rek ndox bi puusaat ko ndoxum siti da koy def nga dem hôpital ñu naan la ay kis la ay fibrom la fekk ni ndoxum siti bi moo fa toog bu nekkee bi génn am na lu ñu lay jox karité la ak liñ ciy def boo ko raayoowee day deñ waaye ndoxum siti ñëpp a ko am ko ko amul gaana nga waaw pour ma leeral képp kuy dox am nga ko dangaa am buy génn ak bu dul génn waaye ak lu mu mën a tollu ndoxum siti ak lu mu garaaw garaaw soo ñëwee ñu dindi ko waaw bu dee bi nekk ci biir tere laa am doom suñ la joxee njaq yi boo ko defee nuñ la ko waxee mu puus xajal la waaw. Euh, kon loolu leer na li nga xamante ni moom mooy euh, ulcère. Mhm. Euh, boo xoolee lu lu koy joxe mooy toogaay bu yàgg bi nga xamante ni bii nii nit ñi ñu ngi koy toog. Mhm. ulcère tamit am nga fi li nga xamante ni moom mooy saafara. comme traitement boo xamante ne bii nii comme ni nga ko waxee ku ñëw fekk si la fii nii sa biir kër gi nga saafara li nga xam ne moom mooy jàng ji ko fi bu baax. ulcère bi am nañ garabam. soo ñëwee. 40 jours lañ la koy traité bu dee góor bu dee jigéen 21 jours. parce que bu bu góor bi boo ko teelul faj mun naa dem ba togg feebar bu bon bi yàlla tere. bu dee bu jigéen bi tamit noonu. mais ku ci dox ba egsi ci soxnaawa rek dañ koy traité mu deñ bu dañul maa la ko assuré taxawal ni dañu ragaluma loolu. Euh, feebar loo gis lu nekk rek góor am na ci wàll jigéen am ci wàll. Mhm. impuissance sexuelle. lëmb na réew mi tëj na dëkk bi xale yi 30 da leen di dal mag da koy dal da ngay gis léegi xale bu am 19 ans mu dal la waaye loolu it rawaan da ciy laxasu bu dee bu rawaan bi. dañ lay xool nuñ lay sampalee ak sa sarax nga def ko mu deñ bu dee boo xamante ni feebar la boo xam ne am na ñoo xamante ni nag góor ñu ci bari nañu ma baal yi ñuy jëfandikoo day tax dalee ni daal soo ñëwee dañ koy dindi. maanaam li ñu safal yi parce que téema dindi lii rek tas ras say parce que tamit waaw parce que gis nga safal yi ni ñu ko sañ a wax suñu mbokku jigéen ñi ñu ngi ciy lore da jël loo xamante tey bu sa góor doon def cinq minutes nga yokk ko dix minutes ñu baal ma ci kàddu bi nag su bàyyee rek day lâché bu lâché weer ñaari weer dootoo ko jëfandikoo am ci góor ñoo xam ni mbalu leen sonal ñu baal ma waaw dañ koy tout temps di ko fawee bu yàggee mu dañ loolu it rawaan da koy sol nit ba ngay fawee sa awra doo ko mun a bàyyi day dal ku ne waaye boo ñëwee dañu koy dindi mu ngi ci sama page TikTok samay produit yoo xamante ni pour góor ñi la ñu ci bari dañ may woo ma ko ci saafara ndax man chaque jour damay wax sama liggéey bu ci sutura bokkul rek na xatta loolu laay wax yu naar yi. Mhm. Euh, li nga xamante ne bii la booba ñuy daangalee ñaari question lay doon. Mhm. Euh, bii ma lay euh, sànni ndax li ñuy wax naan luy dus si nag bi xajul si cin li. dëgg la soxna Awa li nga xamante ni moom lañu ñu naan actualité réew mi ak ni muy doxee waaye réew mi ak fi mu toll. Euh, jafe-jafe yi nekk ci réew mi ñu ko doon jooy di ko doon jooy ba yàlla dogalim dogal tey indi ñu président bu bees boobu ba léegi mu mel ni dégguñu kenn koo xamante ne àdduna jëm ci li nga xam ne moom mooy réew mi léegi réew ak ni mu doon doxee ak actuellement suñu président yu bees yi euh, yan kàddu nga am yoo xamante ne moom ngay dénkaane ndax suñu jeunes yi nga xamante ni xoolal nañ ancien président ba ni ko doyatoo ñu bëggatuñ la jëlee nañ ko fi indi ne ban ñaax wala ban leçon nga mën leen a jox pour que ñu am patience li nga xamante ne moom mooy seeni i réew waa xam na Sénégal daa doon dëkk boo xamante ni dañoo yàkkamti te oto lum xat-xat joxal ma sama yaay xaj na ci nit doo sëy si tey togg suba nduggi dem marché xam kër yëpp mënta ne jomaay mi ngi soog a ñëw dëkk bi li fi yàqu dafa bari te nee naa leen président bi ñëw réew mi dina neex soxlaw ma koo xam xaw ma ko dégg laa ci am ak rawaan li mu ma wan réew mi day neex lool góor ñi nag ku ci yàkkamti takkal daal takk ndigg dugg ci terrain yi def ko comme xale bi taxaw sa lépp day baax waaye boo bëggee def manger bois ak wax waxi réew mi du dox waaye réew mi fii wëg ci kanam day neex lool day neex lool lool lool sax ba romb neex. Mhm. aji comme ni nga waxee rek soxna Awa euh, liy duf si nag bi xajul si cin bi. Mhm. Euh, tey jii yaakaar naa liñ bëgg a ak yow yëpp amaana mënuñu fee jugee. waaye mën nañ koo dënk ba beneen yoon incha allah rabbi si kàttanu yàlla eh, dañu lay bàyyi rek nga présenté waat ñi nga xamante ne ñoo lay seetaan képp koo xam ne soxla na la fan la la mën a fekk ndax tamit c'est très important ngay joxe fi nga xamante ne bii ni fa nekk muy base bi nga nekk ñu la fi waaye di gën a insister tamit ci loolu ndax dëkk bi daa toj na di wër sa toj léeg-léeg nga woon nit mu ñu la mën la diw fekk du diw mm-hmm. bëri na fi chaque jour sa mbokk yi informé lu mel noonu waaye léeg-léeg nga déggante ni mu ne man de am na kuy woote nee nañ man na diw fekk nekkul diw man nga jot jotoo ma c'est très important nga leeral ñi nga xam ne ñoom ñu lay seetaan fan lañ la war a fekk waaye numéro bi nga xamante ni moom mooy marche tout le temps moom mooy sa numéro ci lañ la mën a jotee. waaw man nee naa maa ngi apix croisement apix ku fa ñëw boo taxawee laajte soxnaa wa dañ naan la këram a ngi nale ku ñu woo tamit. ci 77 860 38 68 di nga ñu jot 77 619 02 33 di nga ñu jot waaye ñu ci bari man loolu dañ ma koy kalaame da ngay gis kuy toog ne ni man la élément Baye Karim wala ñuy live nga dugal sa numéro le temps que ñu koy dindi nit ñi dañu lay woo nga man la élément Baye Karim nit damay woo ñëw naa sa kër gisuma la barki démb dal na ma ci live nit ni ma ñëw naa gis gis naa la kër diw te du man kon nañu ko bàyyi te xam ni jéem bari bokkul ñun lii ñuy def nii dañu ko maîtriser mën ko bëgg succès taxul ñu def ko bëgg taxul ñu def ko bëgg ñu xam ñu taxul ñu def ko yàlla la ñu àndal ak sëñ Fallou sama waa ji Fallou Awa Bousso mi ci kaddu gi bàyyal Cheikhul Abdul Karim bàyyi sëñ aboo bàyyi sëñ Baara Falilou ñun kooku lañu àndal guyu sëñ fàllu lañ ku ñëw apix dajeeg soxnaa wa dootoo ko réccu nee naa ni ci réew mi uqa maa ko fi wax wàccaale man la maa lay wax ba nga doyal man la wàccaale ko pour baa ngi lay nuyu nga dégg uqa benn setkat la muy man waaye nag ñiy def loolu jëmmi yàlla arrêté leen arrêté leen parce que wax jaa ngi bëgg a bëri tamit. ñi lay seetaan euh, baaxee nañ dañoo baaxee da ngay baaxee di ay secret dangaa baax ba àgg ca lool ñi lay seetaan yéen secret nga leen mën a baax yoo xamante ni bii nii mën naa sax bañ a yaatu parfois nga taf kot waaye du ñàkk nga am loo xam ne da leen ko baaxee ñi nga xam ne ñoo lay seetaan nekk say xarit say soppe ak say am di jàmm ak ñi nga xam ne saa yoo génnee wax ñu ne gongo. Mhm. ayca damay baaxee ñu ci bari xale góor yi dañu may woo naan ma soxnaa woo dimbali ñu parce que par des fois joxe bi loxo yëpp mënuñoo tàlleendoo ci wàllum kayit yi dañ ciy sonn ma leen a xamal ni leen ku am problème mu kayit demal jënd jaxatu kilo boole ko kayitu tabax libre nga wax ci sa soxla joxe loolu maa ko maye la. bu dee ci jigéen ñi ñi nga xamante ni sëy bi daa naqari lool lool bi nag du ma ko wax ndax code laa ciy def mais li gën a gaaw jëla sa mos sa tayukaayu kër xoot ci sango ci ñetti yoon sa jëkkër sango ñetti yoon. nga def ci ñam bi juboo force la juboo force la xale jigéen ñi bëgg a am jëkkër dàll ñetti fan rek daal di saraxe jàkk nga dégg ay xayri loolu maa ko danga koy jënd danga koy jënd sol ko ñetti fan ci kër gi nga dëkk. solal ñetti fan yóbbu jàkk joxe dangay dégg ay xayri force jota sangu jota dem ci sëriñ naxe bi daa bari. <laughs> kookooy na aw bu suñu Abdou Karim Mbacke moom la ñëwoon seet si tey comme ni leen ko waxee luy dugg si nag bi xajul si kin bi mhm. waaye nag tubaarkàlla dañ koy dog ba beneen yoon ndax lu neex du doy waaye yaakaar naa lépp loo xamante ni indil nañ leen ko déglu ngeen ko te amaana ngeen ko déggee leer na naañ ah, ñi ngi leen di béggee di leen kontaan bu baax a baax yéen ñi nga xam ne ñuy teewlu ak di ñu bàyyi xel ah, saa su nekk ni ñu koy waxee seen yitte suñu yitte waaye seen bëgg-bëgg mooy suñuy bëgg-bëgg waaye kenn ki la mel ni la si sista Babel l'école bi ko weddi yàlla désactivé la kon Abana Gassi di leen jaaf jëfal seen beneen numéro incha allah rabbi waaye du ma fàtte sama réalisateur bi nga xam ne moom laa àndal ceer na mu baax mi kala saa yoo génne kër yàlla sa jàmm yàgg kon abaa naka si ba beneen yoon incha allahu rabbi jërë ngeen jëf ba beneen yoon